c'est quand il dit que ñi ñi ñi woon danañ danañ génne est-ce que c'est à lui de tenir un tel discours la justice séparation bi ñu doon sàkku est-ce que elle est effective bi jamono ji nii. bon xawma ci logique bi mu nekkoon ak ay motivation mm-hmm. mais il a il est libre de de communiquer wax xalaatam c'est un citoyen démocrate il n'est plus qu'un qu'un euh, vrai c'est le premier ministre mm-hmm. mais jàpp naa ne bon su ko defee ak li mu wax xëy na euh, xam na li tax mu def ko. Mm-hmm. mais daal euh, jàpp naa ne euh, changement la ñuy xaar te ñoom xam nañ ne sénégalais yi li ñuy xaar mooy changement. Mm-hmm. la fi amoon ci jaay doole beeg yooyu yëpp man jàpp naa ne dootu fi am parce que fi nga xam ne foofu nga jaar mënuñu comprendre yow nga ñëw bëgg fa jaarale waat nit ñi. moo tax ñoom ñun dañ di def confiance.